ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا الحمد لله الخائل في محكم تنزيله subhaana allazi asra bi abdihi laylan min almasjidi alxaram ila almasjidi alaxsa allazi baarakna xawla linuriyahu min ayatina innahu huwa alsamiu albasir alsalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyoo nuyoo boo xam ne sang bi moo ko nuyoo woon yàlla ca isra ak miraaj ba te moo di attaxiyaatu lillah sallallahu alayhi wa sallam wax na yàlla baatu nuyo yépp lillahi aji sax la rekk ñeel yàlla attayibaatu azzakiyaatu lillah sang bi mi ngi yéeg mi ngi nuyu yàlla nee na ko kii may jëm ndey te mu neex ko yëkkati ma may ñëw ci moom sellte gi mu am ak sellte yi nit ñi am yépp ndeke moo coppati ci sellteem jox ko ñépp kon azzakiyaatu lillah kon maa ngi jëm ci ki nga xam ne ku sell moo la sellal sang baa ngi yéeg durija madurija min tibaaxin al tayibaatu sang bi nee na ko ñi teey ñépp ba dal ba ku leen xool sopp leen bëgg leen seen wax teey seen toogin teey seen lépp teey ki coppati ci teeyam may ko ñooña ba ñu teey kon tayibaat yépp ak salawaat yépp lillaahi yàlla ne bëreet ne ko assalaamu alayka ayyuha nabi maa la fay nuyoo man man mi la sopp ba taf la sama bopp alam yajidka yatiman fa aawaa ay aawaytuka li nafsi maa la fekkoon nga nekk jirim ma taf la sama bopp wa wajadaka daalan fa hadaaka maa la fekkoon xamuloo woon xam-xam ba di ko jàngal kenn juboo xamuloo woon jub te mosoo jubadi waaw xamuloo woon jub te mosoo jubadi kon la ma ko roof ba mu jub te jub xewagul jar naa bàyyi xel moo tax alam tëra kayfa la wax waxul alam taalam ci balaa bu réy boobu ci xam nga lu tax mu wax ko alam tëra kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil ndekete lu tax alam taraja mooy booba ma nga ca ndiggal abdullahi te lawlaa saalta xima baytin bihi sharufat abaauka alxurru bayna alxurbi wal ajami ku dëng ko wax waaye ki leer gi nekk da ko ne ah laa abxi siwa naami lil bayti nag rabbun sawfa yaxfazuhu am na loo xam ne ki ko moom moo koy wattu man samay géléem rek laa soxla ndekete boobu sang baa ngi ci ndiggal Abdul Muttalib di gis lépp ndax am na loo xam ne xale du gis dafay séen mag mooy gis waaw xale du gis day séen ra'yu cheikhin xayrun min mashhadi xulaam waaw boo ñëwee ci kilifa gi nga bëgg a dem mu ni la bul dem nga ne ko pourtant oto yépp taxaw na ma dugg rekk a ci des boo gisee dem nee na ra'yu yëg yëg ba mu am ba ni la bul dem xayrun min mashhadi xulaa moo gën a wóor oto yi taxaw na damay dem ndax dee xaj na ca moo tax yàlla ne ko nekkoo fii woon te yaa ngi fi bi may alak abraha pour mu torox pour ma yëkkati la ñëw ci man yaa ngi gis lépp kon nag ñu joxante loxo maak yow ñu gàmm kon alam tara mu waxtaan ca ak moom kon asalaamu aleyka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu loolu tax bu la xaaji duudu waxee asalaamualeykum nga wax ko wa aleykum salaam wa rahmatullah bu ca tegee wa rahmatullah nga teg ci wa barakaatuhu ndax yàllaa fay nuyoo kon fay nuyoo farata la ñu ni bu ko kenn defee wàcc na ña ca des góor gi ne ma waaye du tee it ku ko def doo ngay am tuyaaba kon bu ko bàyyee kenn kon nag assalaamu aleyna <clears throat> loolu lañu war di waxante wa ala ibadillahi saalihin sang bi nag li mu indi te Cheikh Al Hadji jàngal ñu ko liñ ciy wax sax dañ koy tënk ndax sang yaa ngi jóge ci barabu xalifa bi seen wayjur te it li leen di xaar bari na ñu nuyu kon suñu kilifa Serigne Cheikh Ahmed Tijani yal na yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam teg ko ci loxo sama wasila Serigne Cheikh bu Serigne Moustapha si Jamil ñu ngi koy nuyu bu baax nuyoo yooyu yëpp dama koy teg ci loxo sama wasila sama sëriñ sama gidd di cheikh Mouhamadul Moustapha si al Amin mu joxal ñu ko ñëpp tabaarakallaahu nuyu nag maam jaamu maam sëriñ Mor jaamu si fa tabaarakallaahu ak suñu nijaay sëriñ Babacar si alxaaji Aminta ñu làmb ñëpp ak alxaaji Dudu kenn nuyu alxaaji Pape Ndiaye. xam nga baatu bi abdihi sëriñ Moustapha loolu ñun ñoo ko war a jël ba def ko baatu taalibe xam nga baatu abdu mooy nekk taalibe moo gën xejji waaw asra bi abdihi bi gis nga yàlla waxul bi ruuxihi de ndax ruux du war alburaax bi ruuxihi wa jasadihi fil yaxasati gis nga ni mu ni mu branché seyduna cheikh moom seyduna muhammad bi ruuxihi asra bihi llahu bi ruuxihi wa jasadihi fil yaxasati yonent bi jëlaat yaxasa boobu joxaat ko cheikh ne ko yaxasatan la mën man ndax rañaanu yonent bi ak rañaanu seyduna cheikh ak rañaanu beneen jaam bu ñu xamul ndax keroog bi sang bi di rañaan di dem wuy ji yàlla am na beneen jaam bu yàlla woo ci suuf recevoir leen ñoom ñaar même heure ku ne mu wax la lam lay wax kii ci kaw kii ci suuf Cheikh Hadji indi na yooyu yëpp léegi nag dafa am ñett yoo xam ne dafa am muy ubudiya ibadatu ak ubudatu bi ñu ci ñor nag ci rañaan bi te Cheikh Hadji Malick jàngale ko mooy ubudiya bi xam nga yàlla bi mu rañaanee dafa laaj yonent bi fii israihi wa mirajihi fa bi bi ma sharraftuka gis nga bi mu agsee ba mu jox ko loxo li mu ko njëkk a laaj mooy fa bi ma sharraftuka yonent bi tontu ko seen maam tontu ko fa bi ma sharraftuka seen maam ne aa ah, asra bihi llahu fi zakin fi zakin qad xalat min shahri mawlidi min annubuwati amal hubbi lil kuzarina ala nabi wa alihi ajmaina سلام ربنا دائما عام يا رسول الله وقيل في رجب في ذلك العمل الآن سلام على المغترب القبر سما من أسرابه لو تشريفا المكتدي حتى مرامين أي الجسور على نبي وعلي على أجمعين سلاما فينا دائما cheikh samaam neena asraabi law tashrif milmi nati hatara aramin ay jusumi fa bima sharaftuka cheikh alhaaji malik tontu lan moo tax cheikh alhaaji malik tontu te tontu bi du tontu fi aalamil ashbah de fi aalamil arwaax baasahu lil aalamiina li yuzhira fadla wa adla shahaadata man lam yansas shahaadata alqabliya boobu ca aalamul arwaax te Maodo nga fa woon ci Alxaaji Malik ma nga fa woon te loolu dinañ ci ñëw kon asra bihi llahu fi zakin qad xalat min shahri mawlidihi min annubuwati aama alxubbi lilxuzami wa qiila fi rajabin fi zalika alamalu alana assalaamu ala almuxtaari zilqadami tashrifan li miknatihi soog a ñëw kon asra bihi llahu nga dem ne fii zakin waaye nag lu tax tashrifan li miknatihi xata raa ma raa min aayihi l jusumi loolu nag dinañ ko firi moom la ñuy tëjee rek wax ci waaye li ñuy tënk mooy yonent bi dafa tontu yàlla ne ko xaysu nasabatni ila nafsika bil ubudiyati ndax yàllaa ko wax ma tànn la nga nekk yonent ak buur wala ma tànn la nga nekk yónnent ak malaaka mu ne ko bay ma faxtaaral ubudiya mu tànn wàllu as njaam loolu dimension la as njaam keroog bi way jur bi génnee àdduna te Cheikh al Abdul Aziz Al Amin toog suñu bàyyi alxaaji Maodo Malick si dabbaax di wax ci sëriñ Abdou def ni keroog bi yonent bi tële wax Seyduna Aboubacar ñëwal nga nga xut nga xutba mu ni duma toog ci ëkk gi mukk xanaa ma teg ci sama loxo mu ni kon jot nañu xam kan mooy sëriñ Abdoul Al Amin mu teg ce ne baatu baatu abdu mu ni ko sëriñ mu ni ko sëriñ bi sa way jur sa maam daf ne abdun zalilun gis nga bil ubudi ubudiya bi sëñ Babacar ñëw moom it ne comme Aboubacar tegul loxoom ca ëkk ga man tamit du ma ne abdun ubayduka haza ubayduka haza ubayduka xolal haza ubayduka aiz ubaydaka bi ma xad yastaiz min ashuruuri anta xukmuka nafis fa xukmuka mada taxkumu ma tasha hal min munaziin fa zaaka xayri du Babacar de kon baat boobu abdun moo tax seen maam bëri lu muy wax baatu abdu abdun zalilun faxiirun xaashiun wajilun zu jajain asifun yallaahu yallaahu fa anta xalimun yaa saburu liman jafa yàlla ni kàppit bunt bi Malik mam moo dene faha ana loxo bi ci dënn bi mu mel ni yàlla ne ko kal la rek mu rës ni ko abdun abdun la rek jitu baadiya di feeñal sillati tarxiisam rek te xam nga ne tarxiisul waaye ñoom seen tarxiis ci yàlla lan la li yaxfira laka allahu ma taqaddam min zambik ana bàkkaaru yonent bi ana bàkkaaru sallallahu alayhi wa sallam lan mooy bàkkaaram Cheikh El malik Malick jàngale na lan mooy bàkkaaru yonent bi da ngeen a am koo xam ne soo romboon ay milliards te boolewuñ ca Cheikh El Hadj Malick bàyyi leen ko fa te xam ne li mu am moo ëpp lépp ci àdduna ndax dafa xam ki jafee xam wax ci moom lépp te lu wax ji bari bëri kat borom daara ji daan na wax ni loo wax wax wax loo def def def boo demee ci téere yi xam ne moo doon sa morom. mooy borom fi istiftaahil ahli ahlu samal sa ne bii baana te ca rañaan nga la bii baana wastabsharu min xaadimin xaadimi gis nga mag ñaa ngoog mag ñaa ngi noonu lan mooy bàkkaaru si sang bi dañu mës a xeex ñu jël óomu giléem dóor ko ko ci jë jë bi toj mu jël loxoom ba tedd ba teg ko ci jë bi deret ji fees dell mu ni ma ñii fu ñuy texeeti toj seen jëwu yonent nii yàlla ne ko ah laysa laka min al amri sey nag laysa laka min al amri sey aw yatuuba alayhim aw yuazibahum en tout cas def nañ lu rëy fa innahum zalimun yàlla jël wax boobu denc muy def fatxu makkata abu sufyaan wax ak moom mu ni ko ku toog sa kër duma la laal mu ni ko ñëpp xajuñu sama kër te lan moo indi woon loolu mooy dañu rey seyduna hamza seyduna xam ne dinaa ko fayoo juróom-ñaar fukki bakkan yàlla dikkaat ne ko ah ma foog ne benn bakkan rek la <coughs> daal koy note keroog bi muy ubbi makka bi muy ubbi makka fi Xaalid ibnul Walid jaar dafa am ñuy manifester xam nga kon yàgg nañ tere manifestation yàgg nañ tere manifestation Seydina Muhammad ñëw na bay dugg Makka yéefari na ko mukk du am mu def demi tour bu jekk Seydina Aboubacar ne ko xanaa du ñun ñoo nekk ci dëgg mu ne ko axankay ñeen newuñu ci lu dul dëgg mu ne ko axankay yàlla yónniwu la mu ni ahankay yaa waxoon dinañ dugg màkk mu ne ko ndax maa la waxoon ren yàlla ne parce que marche bi autorisé wu ma ko moo tax yàlla ko wax marche bi autorisé wu ma ko dellu leen ñu dellu bi mu defaree autorisation bi na jox ko Jibril mi yor wàllu préfecture mu ñëw ne ko kon nag la tadxulunna al masjid al haram insha allahu ci autorisation yàlla aminiina homme de tenue encadre leen aminina Xaalid ibnu Walid nag fi mu jaar dafa am ñuy manifester mu rey ci fukk ñu dem ci sang bi ne ko yaa waxoon jàmm la tax a jóg mu ne xanaa Xaalid wax leen ko mu bàyyi rey bi ki génn yàlla fàtteloo ko wax ji mu ne ko yàlla yonent bi nee na nga rey bu baax muy daggaat di daggaat daggaat ba am vingt mu daw siwaat ñëw ñu ne ko mu ngi jeexal nit ñi mu ne waaw Xaalid yónnee naa na bàyyi kooku ñëwaat ne ko nee na nga rey muy rey di rey ba keneen ñëw ne ko sang bi ne xaa danga dafa danga nga tubbi mu ne ko déedéet ku fi ñëw def ma ne nee na nga rey ñu te muy soixante-dix personnes yàlla ne ko soixante-dix ya nga waxoon ci Xaalid ibnu Walid moom laa la fayee nii léegi nag waxam yooyu la dajale naan ko la yaxfira laka allahu ma taqaddam bàkkaar yu yiw yooyu ñoom seen bàkkaar dafa yiw ndax seen bàkkaar dafa yiw moo tax mam Maodo ne abdun zalilun sëriñ Babacar ñëw ba ci baatu ubudiyya ci rañaan bi sëñ Babacar si ñëw na ba ci buntu maam Cheikh Ahmad Tijaani ne ko haza ubayduka sas njaama ngi inda al baabi yaqra'uhu wa laysa jur bi wax ma ne am na jamono ñu koy woyal sëriñ Babacar si ci saal bi ab say du wele agsi ba ci walay sa yaalamu ne ko wa anta taalamu illa anta man xaahu mu ne ma sama muuñ waaye waxul dara moom sëñ Babacar Si wa anta taalamu waaw ab say du wele ne ko wa anta taalamu sëñ Babacar muuñ waaw ubayduka inda albaabi yaqraw wa laysa yaalamu إلا أنت من حاه نعمة ما ساياه بل دارت زواياه عمة ما زاياه بل دارت زواياه بركين هذا عبيدك عند الباب يقول روى وليس يعلم إلا أنت من حافظ أمت ما زياه والدارت زواياه أمت ما زياه والدارت زواياه kon gis nga mu ni mu ne ko wa anta taalamu mais baat biñ ci soxla rek may baatu ubayd bi mu wax mais foofu tamit respect bi respect bi ak ngëm-ngëm bi mu am moom Serigne Babacar ci Cheikh Alhaaji Malick ca baatu abdu ba moo tax mu ne du ma def abdu mukk moo tax mu ne haza ubayduka ak aiz ubaydaka seen maam Maodo ne faxfir xam nga wàllu ubudiya mooy lan xam nga daf ko ne law kaana baabuka laa yatihi zu isamin foofu jamaaliya bi la ko yàlla roof mu waxanteek moom ne ko sa bunt bi eh, su fekkee kàccoor bu mel ne Habib Kébé du fi taxaw bàlla ak kon dafa mel ne fa ma doxeeta xafuuran kulla awzaari est-ce que kon sa turu xafuur bi dana exister foofu laa lay wax de jalaaliya bi dugg ko ca saasa bi mu jógee ci jamaali mooy xaatabtu rabbi jalaaliya bi la xitaaban laa yaliixu binaa muy muy muy muy jalaaliya bi waxante naag sama borom wax ju yellul ci man yàlla ne kàppit bunt bi obodiya bi dugg mu ni faxfir li abdin abdu bi asaami xayaari moo tax mu ni yonant bi nee na yàlla ci isra bi mu jóge makka dem baytil maxdis daje faak yonent yépp wa taxaddamta lissalaati fa sallaw kulluhum muxtadin wa anta al imaam moo tax subhaana allazi asra baat bi buñ ci doon dugg waaye daal asra guddi lay nekk rañaan asra bihi llahu subhaana allazi asra jàng ngeen ko sarayta min xaramin laylan demal ci abada burux ba badrun sara laylan yunaaji rabbahu xoolal ma loolu yooyu yëpp nag tey dañ koy tënk rek mbokk yi lam yësal mutaxaqiqan yonent bi musul dañ bi aw saafi ubudiyatihi yonent bi melokaanu ubudiya nekk as njaam buñ koy delloowaat ci ñun mooy mbokk yi ñun ñépp nañu bokkandoo nekk ay astaalibe ci kanamu suñu kilifa ay astaalibe ci kanamu suñuy kilifa moo tax fi aalamin arwaax fi aalamil arwaax boobu nag la Cheikh Alxaaji maa ne baasahu lil aalamina li yuzhira fadla ndax bu du woon yonent bi duñ xam yàlla fadlahu wa adla fadlahu noblesse am wa adla ak honnêteté am shahadatam man lam yansa shahadat xable seede boo xam ne fàttewuma seede bu njëkk ba de te mooy foofe ca aalamul arwaax ba nee na ubudiya boobu lay jëfandikoo fi wa fi aalamil ashbaax inna allazina xaalu rabbuna allah fi aalami al arwaax summa staqaamu fi aalami al ashbaax wa fi aalami al barzaqi buñ demee ba ca barzaq ubudiya ba la fa yonent bi di nekke wa fi arasaati al qiyaamati taxawaayu yowma al qiyaam sax ubudiya bi lay ràmme ñépp kon kaana nabiyan bil fiali aaliman bi nubuwatihi mumiddan li arwaaxi al anbiyaa te wa xayrihi lam yakun aaliman bi nubuwatihi illa baada al biasa fi aalami al ashbaax seydina cheikh nag loolu lu ko yonent bi joxaat xam nga yonent bi kaana nabiyan bil fiali cheikh kaana waliyan bil fiali muhammad aaliman bi nubuwatihi cheikh aaliman bi wilayatihi muhammad mumiddan li arwaahi al anbiya cheikh mumiddan li arwaahi al awliya wa xayrihi ku dul muhammad lam yakun mënul nekk aaliman di xam bi nubuwatihi nubuwaam illaa baadal bixsa lu dul yàlla yónni ko wa xayrihi ku dul cheikh lam yëkkun du nekk aaliman di xam bi wilayatihi wilayaam illa baada nuzuli fi aalami l ashbaax moo tax cheikh na ruuxi wa ruuxuhu hakaza ruuxu tumiddul anbiya wa ruuxi tumiddul awliya min al azal ila boobu nag ca shahaadata man lam yansa ba ca iraaj ba ca mihraaj ba isra wal ba fa la sëñ Babacar fekkee moo tax mu ni loolu mu wax ni ruux yi wa ruuxu hëkkasa sëñ Babacar ne dëgg la ndax premier wayu innal manaahi la xam nga ban la ban la hmm. ban way la sëñ Babacar njëkk a bind ci ci innal manaahi la mag ñi dañuy bind sëriñ bi dañuy bind ci kaw ci kaw soog a bind ci suuf way bi mu njëkk bind ci xasida bi mooy maza maza tara min rijalillahi kullihimi wa huwa mumit mooy mumiddan bii li arwaahil anbiya mumit mumiddan li arwaahil awliya kon ruuxi wa ruuhuhu hëkkasa moom rañaan nga da koo fekke moo tax moom it ah min rijalillahi kullihimi wa huwa mumiddu bihim wa nuuru yaxsha moo tax ni yonent bi rawee ñëpp dafa jël lépp jox ko cheikh mu rawee ko ñëpp waxoon naa leen ni mooy seen patron te du dañ nag di nekk seen patron bu ñu la laajee Cheikh Salal la lan ngay wax Pape Malick Cheikh Salal Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Salal la léegi est-ce que nit mën naa bokk ak sëriñam sëriñ wa cheikhu ahmad tijaan fa man yulaazimu xutbihi ak muridul xarmi cheikhi xolal bu seydina cheikh nekkee sëriñu babacar sëriñ babacar si nan la mën a nekke sëriñu habib kebe moo tax nañ ko xooliwaat kon kon ñu tënke ko rek lan moo ko yóbbu woon nag gis nga alburaax alburaax yi dañu bari alburaax yi dañu bari de du benn alburaax mukk yàllaa ko wax ni ko jibril demal ca alburaax ya nga tànnal ma ca ku jëli sang bi mu ñëw fekk alburaax yépp di lekk ngooñ yëg nga loolu ngooñu leer benn alburaax bi lekkul ngooñ di jooy jibril ne ko lu tax lekkoo ngooñ ngay jooy mu ne ko dëmm yëg sang bi mujj ci jamono yàlla yónni na ko sama xel ne ci moom mu ne ko kon yaa am chance su dem moo tax kii xool kilifaam di jooy nga ne ko dangaa naa fekk xaw ma looy jooy may ñu jàmm la mu yëg ba jooy yëgoo ko in lam boo mosul fa salli man saaxa jàmmalal ña mos tuxtarami alal buraaqi sarafil muntaha law moo jaa al فرجع جل كتبه على نبي ولي أجمعين سلام ربنا دائما عام بسن لخطي من رفيقه الروح في استفتاح آلي سمل بيبان واستبشر من قدمي فامننا على نبي ولي أجمعين سلام ربنا دائما بفرم دارين على البراق سرافي المنتع لو مجال خلاف فراجع جل كتبه moo tax li borom daara di waxoon rek loo wax wax loo def def boo demee ci téere yi xam ne Cheikh El Hadji Malick du sa morom gis nga faraajax jul la kut bihim yi ñaata téere la cité ci xilaas ñaata téere 365 livres cité na ko ci kifaayatul raafidin 365 téere te ñetti téere yi existé tul ñetti téere rek presque ñoo ci amate est-ce que amate na fan la Cheikh Alhaaji Malick nekkoon ba jël téere yooyu fi fii sururil xinaa an kulli murdiatin demal ci kifaayatul raafidin ci ngay xamee ne Cheikh Alhaaji Malick billahi allazi la illa huwa dafa bàkkuwul waaye wallahi kenn yemu ko ci catu we wallahi wal kitaabil azim bu dee màndu moo gën a màndu bu dee civilisé bu dee jaamu yàlla ndax waxoon na benn njaboot bu bañoon a dem tool mu ñëw teg ko loxo ne ko fii ba sàngam gis nga ma ku fi ku ma fi rawa nu ne ko déedéet gis nga ku ma fi gën a teg sa tànkam ci sunna nu ko déedéet gis nga ma ku ma fi gën a def li ko yàlla sant mu ne ko déedéet mu ne ko kon demal toog moo tax Cheikh Alhaaji Maalik foofu rek la tënkee oustaz alal buraaxi saraa fil muntaha muntaha ba nag dëggal Cheikh Alhaaji Maalik nee na na ci al buraax mais fil muntaha ay muntahal buraax la de ah xooli waat leen ko buraax fan la yem al buraax fan la yem waaw kay sidratul muntaha sidratul muntaha la tudd léegi nag al buraax nag dafa am fu mu yem xam nga raxaa fawqal buraaxi ila samaa'i مودني رقى فوق البراق إلى مودني ودان الملائك مودني وفي الإسراء قالوا خير خسر جسنا يلا رأى المولى فقد تفقير ديني أرأى فوق البراق إلى السماء أبدان لو الملائك أن kon nee na alburaax dafa am fu mu yem xam nga tax buraax am fu mu yem Cheikh El Hadji Malick jàngalewaat ne ñu dem ba mu yàgg Seydunaa Jibril am fu mu yem te Seydunaa Muhammad amul fu mu yem ndax Cheikh El Hadji Malick na alburaax alburaax dañ koy solal essence te du dagg assurance du dagg carte grise mu ni Jibril Jibril du sol du sol essence mais dañ koy laaj carte grise moo tax ñoom ñëpp mu am fu moo doon loolu lay wax alal buraaxi sara fil muntaha yan homme de tenue ñoo arrêté ñoo arrêté al buraax ne ko fii nga mën a yem ñan ñoo arrêté Jibril ni ko fii nga mën a yem te yonent bi nag plein la am duñ ko laaj assurance duñ ko laaj carte grise moo tax inda sidratil muntaha mais fil muntaha ñoom fa ñu yam la mais inda sidratil muntaha yonent bi la moo tax samaam ne raxaa fawqal buraaxi ila samaa'i ila samaa'i ba fa buraax yamee Cheikh Alhaaji Maalik ne fa la plein wam jeexee bi plaie bi jeexee jibril dem ak moom moo tax mu ne waddaana lahul malaayiku ay ataahul malaayiku ay ya diini topp nañ ko bu mu ciy topp di ko liggéeyal firiwul jege de waddaana waddaana ay ataahu almalaayiku ay yataa wa xitma liggéeyal nañ ko wa fil israai qaalu gayra haslin xam nga mag mu toll na si gis nga moo tax mag mu toll na Cheikh Hadj Maay na gayra haslin nit ñu jóge ba kaw la nit ñu jóge ba dakaar sëriñ si toog ba sonn nga wax ñu li ñuy def bidaa la moo doon ne gayra haslin du bidaa de wallaay xam nga yëguloo ni bu ñu la waxee li ngay def bidaa la danga nga donn kuñ ko waxoon xamoo ni la Serigne Cheikh waxoon waa kaw ñoo njëkk a opposé bi ndax noon ya ca kaw ñoo ñooy patron iblis iblis seen surga la yàlla neen dinaa bind yonent bi woo ko mu ñëw ci man ñu ne ko boo bindee ku ñu gën ñu song la boo gindee bindee ku ñu gën ñu indi ko fii ñu song la song ko yàlla bind ko moo tax Serigne Cheikh waxoon ne espace intermédiaire yëpp def nañ fa affiche yonent bi pour wax ni dof nga wa in yakaadu lazina kafaru la yaslixuunaka bi absaarihim lamma samiu lamma samiu azzikra wa yaquluuna innahu la majnun wa ma huwa illa zikr lil alamin muhammadan في علمه فالعلم فيه خسارة وملام تهت بنور جمالك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 kii mooy buur bu amul palema mithlukal umarau anta amirum fi lxukmi aw fi shurati lahramu man lam yaud muhammadan yo yo yo fi ilmihi fal ilmu fihi xasaratun wa mala xanaa ñu jeexale fii rek xaj dudu <clears throat> Cheikh Alhaji Malick nee na te bis bu nekk ñu dégg boroom daara ji <clears throat> daan ko daan daan wax daan daan daan ko toj mu ne di toj saraayi bi aadami marra isa yusufin wa xanuuxin summa haaruna muusa wal abi rahimi mais fiñ ci fiñ ci ñor ci Cheikh Alhaji Malick mooy wa kaana yamuruhu muusa rujua ila arrahmani mustasqilan xamlal hudal karimi Cheikh Hadji Malick nee na <clears throat> li muy yare nag njabootam rek la ñuy tënk foofu ci wax ji mooy Cheikh Hadji Malick moo yar njabootam piir julli ak jàpp ak sellal Cheikh Hadji Malick moo yar njabootam piir laa wax la al amin waxoon ni ah ëtt yëpp nag bagaanu meew ya xonq na ba mu des bu kër Cheikh El ndax kat nekk na ci njaar ne roy ci yonent bi di ñuy bay di bay ba ñu nodd kenn julli jiwul mu génn foog ne defar nañ sàppa yi rek ndekete nit ñaa ngi bay rek mu ni lu xew bay mbër nee na ba mu nee lu xew dafa mel ne écho mu ni ma 15 kilomètres dégg nañ ko ñu daw wut si ko mun bu ma kenn jege dem leen jàppi waaw mu ni génn leen sama tool la wax maam Mor jaamu nee na mu julli ba pare rek sëlmal ne na fi tool bi yam ndax da waxoon nañu jaamu yàlla kiin mun ta jaamu yàlla te jàngoo ñu ne nañu wut daara te kiin mun ta jàng jàng te lekkoo ñu ne nañu wut tool ngeen bëgg a jël troisième position Maodo def ko premier position yàlla na fi yam tey wa taarika aw xaatin li xidmati cheikhihi ka aabidi asnaamin bi duuni mira mu ni yow waxuma ki bàyyi julli mais waxtu julli yi rek nga koy rate ka aabidi asnaam seen maam nee na yàgg ñi doon jaamu xërëm yéen a yam bi duuni mira ci lu dul werente hëli cheikhu ala rutbatan ndax sëriñ dafa gën a màgg daraja li nabiina suñu yonent bi ñu sol luñ solul kenn fa jaahid salaatul xawfi xëyru xafaayi muy xeex ba pare yàlla ne ko daggal def ko ñaari xaaj nga jiite ñi benn ñu àggale sëlmal jëli ngànnaay yi ñoom ñu ñëw nga àggaleek ñoom seen benn ñoom ñu àggale xuzu xisrakum ngeen songiwaat Maodo ne lii am ngeen koy bàyyi moo tax alaaji Malick si nee na Seydunaa Muusa moo ko ne demal nga dellu ji ca rañaan nga seen maam nee mu dem mu ne ko man juróomi yonentu yàlla Moussa Cheikh El malik Malick nee daf ni yonentu yàlla Muhammad man ñaari julli rek lañ ma joxoon te sama xeet gën a dëgër sa xeet gën leen wér gën leen gudd fan te ñaar daawuñu ko matal demal mu dem yàlla wàññ mu ñëwaat Cheikh El malik Malick na mu dem yàlla waaw lii ba muy am foofu Cheikh xaaj Hadji Malick nekkoon mooy shahadata man lam yansa shahadata ba xabliyan yàlla bàyyiwul ñëpp gëmm am na ñu doon xool Seydina Ali nee na alamul arwaax mi ngi mel na tey ci man fàttewuma ko Seydina Ali waaw ba ko Jibril ne ana Jibril comme yaa fi raw mu ne ko xool naa ci kaw gisuma ko xool ci suuf gisuma ko est-ce que du yow ana madinatul ilmi wa aliyun baabuha nee na muy wàññilu di wàññilu xam nga wasaaba mustanqisan lil xamsi boobu rek fa lañuy ñuy tëje wax ji lil xamsi summa xadaa mustaxiyan xoolal seen maam lu mu bind da koo jëfe lu mu bind jëfe na ko Cheikh Hadji Malick bëgg al amin laa ma sa bëggul woon ku koy soññ moo tax si yéen si boo leen soññee rek ñu mere la waaw boo leen soññee soññaal la rek waxee sëñ Moustapha ah yow waxuma la woon ni dinaa ko def ah ah waaye yow bàyyi ma way xoolal loolu waaye xoolal seen maam ni mu leen mustaxiyan ni mu leen waat ci kersa boo ku ci toog sa kanamu mag rek da ngay mel ni ku toog ci kanamu Cheikh El Hadji mais watil ka xam su faridaatin boobu la ñuy tëjee yakunu laha sawaabu xamsiina fii ixlaasi muxtadimi seen maam nee na juróom fukki julli yooyu xam nga juróom fukki julli yi mu ngi waye salli ala saajidin bi xam nga tey siir wayewu ko ci suuf ci xadratul yee la ko waye moo tax ñu may ko terrain mardi ñu may ko terrain tey ci samedi bi tey ci samedi bi Cheikh El Hadji Malick gàmm mu war a nekk mercredi mu woo àdduna bi yépp na dal si leen ci man ci R plus 4 bi samedi dimanche lundi mardi mercredi mu pare mooy zit tey siir yàllaahu nazma daraari xam na boppam ma ne Cheikh ma ni nit mënuñu laa may samedi terrain tey ci Tiwaawan nga am fitu <clears throat> wax ñëpp R plus 4 bu karo yi pare lépp pare falaay dale <clears throat> Cheikh Alhaaji Malick nag dafa ni bërit rek yàlla xamal ne lu mu dugg yàlla may ko ko moo tax wasilatul munaa la ko waxee su ngeen bëggee àgg fa ngeen jëm teye leen lii Serigne Moustapha bu ñu ko téye tey siir la te wasilatul a mooy taale sa oto Thiès wasilatul a topp ci tali bi pour seet si Serigne Cheikh Ahmed Tijani ak Serigne Moustapha waaw faf nag nga ñëw EDK di jël essence Serigne Moustapha di jël essence góor gi di jël essence Maodo ne tey siire ngii bis boo dee jàng tey siir nii lay demee dootoo demati dalay fekk si. moo tax mu ni pat alhamdulilahi ba pare foofu dafa garaaw ala kulli xaalin la de. ma siburu ma feebar ma deele ma yàqule lépp ala kulli xaal alhamdulilah bu firiwul alhamdulilah simple nii de dangeen ngeen defa ne Maodo da cee bokk billaahi bokku ci moo tax nag Maodo nee na <coughs> wa tilka xamsu faridaatin sëriñ Moustapha juróomi julli yii yakunu laha sawaabu xamsiina mais important wul ci Maodo julli bi de yëg nga loolu mais ixlaas bi moo importance ci moom sellal gi loolu nag la seen maam wax ne ñun nañu bokkandoo sellal suñu gàmmu dégg ngeen nañu bokkandoo sellal suñu jaamu nañu bokkandoo sellal li Cheikh Al Hadji Malick sellal loolu daal lañ doon indi te sax lañ bindoon waxuñu ko waaye nag euh, bind lépp bëgg koo wax nag fala alku tayam déedéet li ma bind yëpp dinaa ko wax samay kanam kilifa fala ñàkk taalibe yam obodiya nag ku koy waxtaana da koy jëfee te mooy obodiya as njaam as taalibe as ci kanamu ay kilifaam kon xëyra xaslin kon gàmmu du bidaa dégg naa suñu nijaay ju baax ji sànq ñu may tegal waxtaanam Pam Maxtar Kebe mu ne ñun dañuy gàmmu de dañuy gàmmu waaw ñun tamit dañuy gàmm xam nga lan mooy bidaa sëñ Moustapha bidaa nee nañ lu fi yonent bi bàyyiwul duudu maa ngi ñaanal ahlul ñi wax ñi wax bidaa ñoom kañ lañ gane àdduna ginnaaw yonent bi comme ñoom ay bidaa lañ yàlla na leen yàlla def sunna wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu wa yuallimuhum alkitaba walhikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubinin wa axarina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa alazizu alhakim ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا